salaamaaleykum yegg si leen ak jàmm ci suñu chaîne bi du tuto Baba Design euh, tuto Baba Design di chaîne boo xam ne dañ ko jagleel lépp luy création graphique lépp luy infographie euh, man maa leen koy présenté man Babacar Diémé di infographiste donc euh, leçon yi ñu gisoon bële yoon ñu doon wax ci lépp lu jëm ci mbirum outils yi léegi nag tey dañuy jéem a rester ci même leçon yi maanaam ci outils yi waaye outils yi ñuy gis mooy outils retouché outil retouche d'image yi dinañ gis ñeenti uti nag outil yi ñuy gis mooy euh, outil euh, tampon de duplication euh, uti pièce outil correcteur localisé ak outil correcteur mooy uti yoo xam ne dañ ko jagleel lépp lu jëm ci mbirum retouche d'image Euh, ci noonu nag bu leen fàttee euh, abonné activer euh, cloche de notification bi bés loxo bu bleu bi ak sonné bi sonné bi mooy cloche de notification bi bien sûr bu ko defee ngeen jàppale chaine bi mu gën a am doole jëm ca kanam bu leen paree mën nañ tàmbali. ci suñu leçon bi dinañ gis outil wu retouche Photoshop yi. pour outil wu retouche wu Photoshop yi am nañ outil yu bëri waaye ñeenti outil rek la ñuy gis dinañ gis euh, outil correcteur localisé dinañ gis outil correcteur outil pièce ak outil tampon de duplication outil bii nag di correcteur localisé dinañu jàppale ci euh, lépp luy maanaam imperfection yi ñuy am ci image yi dañ koy sélectionner noo koy sélectionné da ngay dem ci baaru outil bi di nga gis euh, uti correcteur localisé raccourci G da nga koy sélectionné boo ko sélectionné nag ba noppi da ngay dem ci image bi zoomé bu baax ak alt ak molette da ngay jéem a xool itam épaisseur u euh, kii bi outil bi da ngay dem ci kaw baaru outil bi baaru outil bi ci kaw par mooy baaru option bi nga dem ci épaisseur bi bu la neexee yokk ko bu la neexee wàññi ko bu la neexee yokk ko da ngay dem euh, sa ndeyjoor boo ko bëggee wàññi nga dem sa càmmoñ gisoo fii yokk nañ ko bu ngay dem rek cliquer boo cliquer rek da koy effacer Photoshop day calculer ba noppi corriger zone bi nga xam ne fa la ñu coller euh, kii bi fa la ñu coller suñu uti bi loolu lay def day gis nga boo seetloo buñ ko defee ci beneen élément itam da koy corriger gisoo da koy da koy corriger day mel ni day jëlee ci image bi coller ko coller ko waat ci ci euh, zone biñ ko biñ ko euh, corriger léegi mën nañ essayer yeneen i mode am na beneen mot bu tudd mode euh, remplacer boo xoolee ñun mot normal lañ ne woon dañuy dellu gannaaw nag maanaam ak contrôle Z ñu essayer mot remplacer xool lu muy joxe xoolal gis nga gis nga gis nga boo seetloo ni que am na différence ak li ñu amoon waaye ba léegi li ñuy def baaxul parce que retouche moom boo koy def dafa war a set am na ñeneen yu option nag waaye naa leen bàyyi ngeen xool ko walla ngeen poser question ci commentaire rek ma tontu leen. ndax bëri na ay mode yoo xam ne mën ngeen koo utiliser dañuy jàll nag ci uti bi ci topp muy outil correcteur di uti boo xam ne presque même liggéey bi lay def ko outil B dañuy contrôle Z annuler liggéey bi ñu defoon li koy wutaleek euh, outil B mooy que ni outil bi liggéey bi ñun ñoo koy defal suñu bopp échantillonnage bi ñun ñoo koy woon maanaam photoshop fan la ko war a jëlee dañ koy won ni que bërëb bii laa bëgg nga jëlee ko boo xam ne day xaw a méngoo ak li ñu bëgg a bu ko defee photoshop day copier foofu ba pare corriger zone bi nga xam ne moom imperfection bi donc dangay bës alt cliquer après nga ñëw bës boo bësee moom day jéem a adapté wu ci zone bi buñ bëgg a corriger gis nga da koy corriger koy corriger gis ngeen corriger na ko waaye ba léegi tamit euh, correction bi ñu bi ñuy def des na parce que boo seetloo correction bi ñu def sànq ak wuti euh, correcteur localisé bi moo gën fuuf Euh, correction bi ñu def euh, ak wuti euh, correcteur bi parce que bii calcul yi dafay xaw a jafe trop ndax yooyu yaa koy wax fi mu koy localiser donc il faut nga xaw a jege zone bi bu baax a baax a baax pour moom mu mën koo defal boppam localiser bi nag moom mooy xool fu fu ko neex fi xaw a niroog zone bi nañ delluwaat ci beneen outil bi muy outil pièce outil bi nag dangay dem maanaam ci élément bi nga bëgg a boo ci demee da ngay wër élément bi da ngay détourer élément bi danga koy wër waaw léegi nga déplacer ko ba pare jéem a xool fii niroo ak ñun li ñu bëgg a corriger gis nga ba nga ko am nga bàyyi boo bàyyee nag automatiquement da lay àndil zone bi nga sélectionné da ngay désélectionné bés contrôle D ba noppi nga jàll ci beneen bi boo sélectionné deuxième élément bi tamit nga puus da ngay puus waa gis nga boo puusee mu jox la beneen zone jàll ci beneen élément gis nga da ngay nekk ci digg bi nag boo bu wëree ba pare da nekk ci digg bi puus boo puusee nga sélectionné zone bi nga bëgg gis nga léegi ñun corriger nañ fi mu toll nii ñetti éléments yi boo seetloo ni uti bi moo gën outil correcteur localisé moo gën uti correcteur maanaam ci xeetu liggéey bi ci xeetu correction bi boo seetloo moo leen ci mën waaw waaye nañ jàll ci euh, uti tampon ñu delluwaat bës contrôle set pour dellu ci suñu image ni mu meloon ñu sélectionné outil tampon bi outil tampon bi nag boo seetloo day def même chose que yéen euh, outil euh, correcteur lo euh, localisé bi ak outil correcteur bi maanaam day tànn day jël ci zone bi waaw nañ jokk épaisseur bi gis nga dañuy jël benn zone boo xam ne day niroog partie bi ñu ñëw ñu kole mais boo koy jël da ngay bës alt clic da ngay yokk pour mën a am épaisseur bu mag pour mu mën a muur li nga bëgg a corriger parce que foog mu muur ko bu ko muurul rek baaxul mooy li gën daal bu fekkee ni nag amoo espace bu baax pour mën a eh, eh, copier échantillon bi day xaw a jafe. donc bu fekkee ni outil bi baaxul rek pour correction bi nga bëgg a def bul forcer bul forcer changer l'outil parce que outil yi bëri nañ te euh, ku ci nekk ak sa liggéey bi nga gën a ay gis nga dafa xaw a jafek euh, outil tampon bi gisoo li mu liggéey euh, pièce moo ko ci mën boo seetloo pièce li mu liggéey moo gën a net dañuy delluwaat gannaaw def benn correction général nag pour ngeen xam uti bu nekk euh, fan la gën a foore ak euh, nuñ ko mën a utiliser dañuy tàmbalik euh, outil correcteur localisé gis nga boo xoolee picc yi outil correcteur localisé laa koy corriger nii gis nga gis nga gis nga xoolal fii gis nga fii damay wàññi épaisseur bi ba mu tuuti ba mu tollook picc bi gis nga fii itam gis nga foofu itam gis nga mhm. gis nga boo seetloo outil bi ay na trop ci affaire picc parce que boo seetloo bu dee ay point yu ndaw correction bi day gaaw ak correcteur localisé bi seetlu nañ ni pièce moo gën ci eh, xeetu élément yi moom la ñuy sélectionné waat sélectionné zone bi déplacé waaw da ngay sélectionné zone bi da ngay wër nga tekku ci digg bi puus puus sa ndeyjoor wala sa càmmoñ gis nga puus voilà gis nga boo seetloo moom correction bi mën na ko torop boo seetloo nag outil bu nekk am na fu mu aaye waaw boo seetloo correcteur localisé laa utiliser pour euh, picc yeeg yooyu boo seetloo pièce laa utiliser pour génne mooy euh, décoration yi mu defoon ci kanamam gis nga chaque outil am na fu mu mënee waaw léegi dañuy jéem a corriger fene mooy euh, yeneen kii yi mu collé ci yaram bi léegi dañuy def détourage nag ak outil plume maanaam dañuy jéem a topp silhouette yaram bi gis nga gis nga ñu koy imaginer rek parce que boo xoolee normalement lex bi noonu la war a toppe léegi dañuy définir une sélection dañuy jël nag tampon outil tampon léegi nag gis nga ci biir fii gis nga fii du génn zone bi ndax dañ koo détouré ndax boo seetloo liñ sélectionné nii foofu la kese la yem mënu koo dépasser léegi dañuy intervertir sélection bi dañuy dem sélection intervertir pour mën a corriger ci biti mooy ci biti nii buñ sélectionné fii gis nga ñu def fi tempon bi gis nga gis nga fi mu toll nii retouché nañ image bi mais ak outil yëpp parce que boo seetloo utiliser nañ fi outil yëpp parce que jàppal ni outil bu nekk am na fu mu mënee léegi yow nag yaay jéem a xool ban outil moo gën a baax ci li ngay def bu dee pièce moo gën a baax nga utiliser pièce bu dee correcteur localisé bi moo gën utiliser ko bu dee correcteur moo gën nga utiliser ko ou bien tampon loolu la ñamoon pour tey boo leen bëggee nag ma joxe ay yeneen leçon ci yeneen outil de correction yi na ngeen ko bind ci commentaire yi bu ko defee ñun dinañ ko aborder ci suñu yeneen i leçon incha allah. voilà fi mu toll nii nag pare nañ euh, yaakaar naa ni yéen fi mu toll nii mën ngeen def ay retouches d'image te xam ngeen nuñ koy defee. bu fekkee ni itam am na leen lu leen réer ci mbir mi mun ngeen ko laaj ci commentaire yi euh, leçon bi ñëw nag dinañ fexe def lépp luy flyers wala luy carte d'invitation dinañ def daal exercice bu pratique boo xam ne dina leen won lu ñuy defaree yenn visuels yi ci Photoshop donc euh, maa ngi leen di xaar euh, ci sama yeneen i vidéo Euh, bu leen fàtte bés loxo bu bleu bi ak sonné bi te itam ngeen abonné ngeen jàppale chaîne bi euh, kon ñu def noonu ba beneen yoon ciao